bismillahi rahmaani rahim mbokki groupe laaj ak tontu ci diine ak képp ku dégg suñu kàddu ñoo ngi leen nuyu di ñëwaat ak yéen ci seen jotaay yuñ tudde nettalib gaa yi baax yi mooy jotaay bu ñuy yéen ci biir weeru koor wi eh, Amr ibn As bokkoon saxaaba yi moom moo ubbi Misra moo fa tasaare lislaam moo am ibn As moomu bi ñëwee Égypte mi Misra daa gis na kat waa Misra léeg-léeg bu dexu seen dex gi muy niil dexu niil gi bu demee ba amatut ndox ndox mi dem ba wàññeeku dañuy jàpp benn xale bu jigéen waajal ko ba mu jekk ñu fodon ko sànni ko ci dex gi buñ ko defee nag dex gi doo ko commencé eh, am ndox bi nga xam ne Amr ibn gis na loolu nag mu daal di bind leetar yónnee ko Omar ibnul Xataab mi nga xam ne boobu moo nekkoon amirul muminin ki jiite jullit ñi daal koy xibaar loolu mu gis te Égypte Omar ibnul Xataab daal bind ab leetar boo xam ne mi ngi ko jëme ci dexug niil googu nekkoon Égypte dexug niil leeta ba la ko ci wax mooy yow niilu Égypte yaa niilu masra misra bu fekkente ne sa boppa tax ngay wal ci sa ndigalul bopp ngay wale ba ndox mi ñëw ci nit ñi mu faj seen aajo subaana nga xam ne ñun amuñ ci aajo ndax suñu aajo mënoo koo faj bu fekkente ne nag ci ndigalu yàlla ngay dawe yow dex gi yàlla mi nga xam mooy kenn ki noot ñëpp maa ngi ñaan yàlla yàlla def la nga wala ngaan ba agsi ci nit ñi ndax ñu mën laa jariñoo dal yónnee leetar boobu amru bnul as ne ko boo jotee nga sànni ko ci biir dex gi ba leetar ba agsee omar dal koy sànni ci biir dexug niil googu ndox ma nag commencé wala ngaan bu baax a baax a baax ba ak sax ci ca kër ya ba nit ñëpp am ndox man koo jariñoo loolu ku xool al bidaaya wa nihaaya bu ibnu kathir ci bi mu nettil fatxu misra danga ci gis sa boobu lool nag mas na jànge wakilu goo xam ne Omar ibnu Xataab wakil ko ci yàlla waaye di ko jàngal ñépp waaye tam daan ci jàng ne lépp ci ndigalu yàlla lay amee te lépp itam jaamu jaamu yàlla lépp jaamu yàlla daan jàng ne lépp loo xam ne mën na koo am ci ak mooy yàlla wala ci ak bokkaale mbaa ci mel noonu su wéete su wéetaloon yàlla itam dellu ci moom la ko gën a am am bu rafet gis nga Omar moom àndut ci ñiy jël ab xale bu jigéen di ko sànn ci biir dex gi mais ne ko koy jënde waaye bi mu delloo ci yàlla rek wàqanteeg dex gi eh, la yàlla dogal ci kàttanam ak coobareem dex gi dégg loolu ñu ko wax ba commencé di